gan gi euh, Serigne Mbacké Ndiaye euh, ministre la woon ci gouvernement bu président Abdoulaye Wade moo jiite tey convergence libérale patriotique CLP ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci matinalu Rewmi FM. Euh, maa ngi lay fay di nuyu mbokki auditeurs yëpp. di leen ñaanal tabaski jàmm di ñaan yàlla yombal leen lépp ñu tabaski ci jàmm. amiin alors euh, monsieur le ministre euh, dialogue bi euh, daal dinay jeex waxtaan bu yaatu fukki fan ak juróom au moins ngeen tënk conclusion yi jox ko président Macky Sall mais li gën a fës mooy dialogue politique bi alors que amoon na beneen dialogue notamment ci wàllu koom-koom wàllu sécurité ak social de manière générale lan la ñu mun a jàpp si si ponki dialogue yooyu bu weesoo politique bi. waaw jërëjëf xam nga politique moom dafa am bayre am bayre lool moo tax lu dugg rek da koy daal di da koy yëbbu couleur ko. Hmm. mais comme ni nga ko waxee dialogue euh, nañ ci question yu bëri. li ci ëppoon solo nag ci ëpp solo dëgg dëgg dëgg mooy dialogue bi ci boppam mooy hmm. toog waxtaan loolu dafa am solo. Hmm. ay nit yoo nga xam ni bokkuñu fu ñu jógee bokkuñu lu ñu gëm bokkuñu ay bëgg-bëgg. war a mën a toog waxtaan ci njariñu réew mi loolu ak loo ci mën dégg rek. Mhm. Euh, jàmm rek lay doon njariñ rek moo ci mën a donc loolu mooy li ñu war a jëkk rafetlu leneen di ci topp mooy ni nga ko waxee am na yeneen commission nga xam doon nañu liggéey mais man euh, ñaari commission yi ma ci jàpp yu yu gën a am solo ci man bi ci jëkk mooy affaire sécurité ndax sécurité da am solo yàgg ngeen dégg ay ati ati at may wax ni li may euh, xarabe sama bopp d'abord di ko xarabe ñeneen ñi nga xam dañu nekk ci langue politique yi mooy dafay mel ne xamuñu lu xew ci jamono li xew ci jamono mooy àddina boo nga xam ni cin la luy bax foo lamb rek dafay tàng mm-hmm. ñu nekk ci réew mu tudd Sénégal boo lambee réew yi nga xam dañ ko wër yépp benn bu ci nekk tey réew ma ngay jax te la koy tax muy jax ñu xam ko beneen bi ci topp muy réew mu nga xam ne dañu ne léegi kat dafay war a tàmbali am pétrole ak gaz te ñu xam am na ci àddina bi ay jaaykatu peinture joon yoo nga xam ne fu ñu dégg ne gaz am na fu la pétrole am na fa dañuy fexe ba dugg fa salfaañe réew mi ba dootu leen ko tal ñoom ñu jaare ci ginnaaw di exploiter pétrole bi exploiter gaz te ñooñu it ñu xam ne am na ñu ay nit am na ñu ay xarit am na ñu ay ñu jëflanteel yoo nga xam ne ñu nekk ci biir réew bi donc yooyu yëpp su amee ñun ñu waroon ni tekk toog waxtaane loolu damay faral di wax ni kilo ceeb bu cher am na solo litre diwlin am na solo leneen leneen am na solo mais jàmm ëpp solo lépp. Hmm. parce que loolu lépp di ko wax di lekk mbaa topp yàlla sax bala nga ko mën a ba nga am jàmm. Mhm. kon jàmm jooju moom la ñu waroon jëkk di ko waxtaanee kon bu fekkee ne dem nañ président woote na dialogue ñëpp ñëw mu am commission paix et sécurité. Mhm. ki ko jiite woon di ko nga xam ne xam-xamam ci wàllu woowu du lu kenn di werante mu nekkoon chef d'état-major général des forces armées le général Sow. ñu am waxtaan yu am solo yoo nga xam def nañ ko ñoom ci wàllu paix ak sécurité. Mhm. dafa nekk loolu dañ koy rafet koy également commission bi nga xam ne président notre frère bi di aj moo ko jiite woon doon wax ci affaire koom également mhm. di lu am solo donc loolu muy pàcc yoo xam tënk nañ ci ñaar ñaari téeméer ak juróom fukki ponk mhm. yoo nga xam ne teg nañ ko ci table président la république te yooyu yëpp boo ko seete fukk ak ñaar dong moo ci nekk lu jëm ci politique mhm. kon mu waree rek ni dialogue bi euh, wax nañ ci politique naam comme ni mu ko waxee parce que politique moom dafa am bay rek waaye wax nañ ci yeneen ponk yoo xam ne aussi économie la sécurité la Eh, environnement la maanaam suñu suñu mm. cosaan ak aada mbirum ndaw ñu loolu waxtaan nañ ko mu nekk loo xam lu am solo la. Mm. lu ngeen waxanteeg euh, ñuy yëngu ci wàllu koom-koom yéen acteur politiques yi parce que lu mel ni secteur privé par exemple dañ leen dégg bu réew mi yëngoo euh, ñu ni euh, way politique yi ñoo war a delloo si seen xel ndax ñaare liy yëngal réew mi ci ay mbiri politique lay jóge te loola dafay am njeexital ci koom-koom bi manifestation join bi moo si moo si mujj alors yi sekk comme waxtaan ak ñi yëngu ci wàllu koom pour ne pas dire secteur privé bi. waaw xam nga dañu tënk benn ponk bu am solo ci dialogue bi muy ñëpp ñu ni nañu respecter institution yu nekk ci réew mi. Hmm. muy tribunal muy muy police muy gendarmerie muy bu bu ci doon ñu ne nañ ko parce que lépp nag foofu la tàmbalee parce que bu ñuy wax les hommes politiques xam nga aussi waxtaan di ko lu fexe waxtaan wax dëgg ci la. Hmm. coow li nga xam ne moom la ñu dund ci réew mi tey nekkul coowul politique c'est ça loolu muy dëgg gi nekkul coowul politique hmm. parce que coowu politique di nga doon candidat doo doon candidat code électoral baax na code électoral baaxul bulletin unique du bulletin unique loolu yàgg nañ ko waxtaan te dafa jaar waaye coowu di nga doon candidat am déet tam mi ngi suñu kanam ndax yee ñetteelu mandat bi yee weeguñ ñu ci mais ci laa jëm si boo tax ma wax respect hmm. des institutions hmm. xam nga ñaari nit foo leen fekk ñuy werante kenn ku nekk jàpp nga am nga dëgg ñaari nit bu ñu song di xeex kenn ku ne da nga jàpp ne am nga dëgg moo tax mu jaral la xeex. Mhm. mais am na ko war a àtte. dëgg la ñëpp nangu nañu parce que amul keneen ku mën a àtte ci réew mi ku dul conseil constitutionnel. tey ku ci ànd ak ku ci àndul booy déposer sa dossier conseil constitutionnel nga ko yóbbu kon kooku nga xam ni moom dong mu am sañ-sañu àtte mais nañ ko bàyyi mu àtte loolu moo leen tuddee respect des institutions parce que ki ne am na droit nekk candidat loolu la jàpp. kii ne amoo kii amoo droit nekk candidat loolu nga jàpp waaye nag man amuma sañ-sañ ni ni diw doo déposer sa candidature kenn amu ci sañ-sañ ndax man sañ-sañ bi ma am pour déposer ji mm-hmm. moom la keneen am pour déposer ji am maa baax na wala baaxul du maa koy wax man parce que ñaari mbër yi bëri kenn ci mënul àtte sa morom dafa am arbitre bu leen di àtte mm-hmm. comme yow da ngay bëri sa moroom di bëri kenn ku nekk bàyyil sa morom bu ñu bëggee jàmm am kenn ku nekk bàyyi sa morom ak sañ sañam mm-hmm. buñ ko defee je pense que coow yu wax yépp danañ ko weesu te dañ koy weesu incha allah léegi laaj bi mooy ndax euh, waxtaan ngeen ak secteur privé bi ci événement yi suñu kanam 2024 ak yeneen ak yeneen ndax réew mi su yëngoo rek koom-koom bi itam dafay nax saay waxtaan nañ ci jàmm ji de manière générale mais xam nga li may wax toujours rek mooy mbir bu amee mm. muy ñu nekk secteur politique muy yéen waa journaliste yi muy waa politique muy ñeneen ñi politique bi sax xëy na mën nañu comprendre mënuñu àtte seen bopp. Hmm. wante mbir su amee kenn ku nekk da nga war a am sañ-sañu ne yow mii kër yaa tooñ parce que nangam ak nangam lii nga def waruloo ko woon a parce que coow bu jógee am na fu bu jógee. Hmm. coow xëyul rek xëpp ci suñu kaw. li ñuy wax tension politique te man may wax ni du tension politique problème judiciaire la ñu indi ko ci terrain politique donc loolu am na fu mu jógee li ci am solo mooy encore une fois dama koy wax di ko baamtuwaat dañu war a bàyyi man su ma defee dara. ñu ne ah Serigne Mbacke def na waaye kat Fatou Bintou tam defoon na ko démb ak ki démb kenn du attee noonu. Mm. bu ñu attee ki deful lu muurul def ñëpp dañu war àndoon ñu ko yow mii kat lii nga def waroo ko def bu ëllëgee keneen du def lu mel noonu donc waxtaan nañ effectivement ak secteur politique bi secteur politique euh, secteur. Euh, économique bi bi euh, pardon wane nañu seen seen jàqare ak seen jaaxle ci yenn yoon xam dafay am ci biir réew bi loolu tamit bokk na ci li tax ñu gën a engagé. ñi nga xam ñoom la yàlla dénk réew mi mooy les forces de défense et de sécurité ma di leen sargal nag bu baax a baax a baax parce que ku nekk gis na seen taxawaay ci réew mi taxawaay bu metti parce que di tax muy taxawaay bu metti mooy jàkkarlook ay nit mu yor ay ngànnaay wut si la nga yor ay ngànnaay te bëggoo koo jëfandikoo mais bëgg nga naxatee ñoom ba dal am te ñoom xëy na buñ la jox ko faagagal la xam nga loolu da di position bu metti mhm. mais terewul gis nañu def nañ ko vraiment ci anam yoo nga xam ni waxuma ni rëq-rëq amul am na ci peut-être parce que mm-hmm. ay bakkan bu rotee rek loolu doy na musiba. Mm-hmm. mais mënoon na gën a ñaaw bu fekkoon ni force de sécurité et de défense dañ jóg pour jàmmarlu gis nga Moussa def benn conférence de presse c'était en 2011 ou 2012 à la présidence. Mm-hmm. bi conférence bu jeexee benn journaliste bu mag bu jóge woon Amérique. ñëw dugg sama bureau ne monsieur le ministre man ko mu ni ma li ma lay wax nii ñemewuma ko wax ci rajo wala ci télévision man ko lan la. mun ma damay ñëw pour sargal les forces de défense et de sécurité du Sénégal parce que ni ñu leen de attaqué ak ni ñu ko géré man bu doon réew mu ma dëkk ba tey rey lañ leen rey lañ ñëpp ñu jeex. Hmm. donc pour dire que ñooñu vraiment war nañ leen a sargal war nañ leen a njukkal war nañ leen encouragé parce que ku manti doon président nekk ak ñoom. Mhm. ku mënti doon opposant nekk ak ñoom ko donc mhm. ñoom ñun ñoo war a comprendre ni. ñii réew mi wala fa tax a nekk mais Massamba taxul leen fi nekk wala Mademba. d' accord léegi bi réew mi yëngoo fan yële ndax mbiram Ousmane sonkoo bokk nga ci ñiñ ne dañoo doxi tànki jàmm ci Touba euh, loola lan ngeen ci jëlee ak lan la ñu mun a xaar pour la suite parce que Ousmane Sonko booba ba tey euh, ñi ngi ko tëj këram bàyyi wuñ ko yóbbuwuñ ko kaso ba démb sax ay euh, nawleem ci al politique ne woon dañu yëkkati ji blocus bi sottiwul ñu am ñuñ ca jàpp. lan ngeen jëlee ci doxu tànk jàmm yooyu ci ci mbiram Ousmane Sonko. waaw xam nga man man dama toog comme ni nga ko waxee premier jour deuxième jour bi ma am ay xibaar yu bëri bëri bëri nga xam ne benn neexu ci benn baaxu jëm si ci réew. lu xibaar yooyu doon lii mënu ko doppiwaale. lu xibaar yi doon wax le ministre. muy musiba bu jëm ci mi rek du violence. Hmm. violence euh, rek moo xam daroon yokku. ma ni du ma ko toogaale dinaa ci dox li mu mën man maa jël initiative kenn woowu ma kenn sàntu ma dem seeti président de la république wax ko li ma ko war a wax xamal ko ni ko nag tàggu ma la dama lay yëgal maa ngi dem seeti ku tedd gi woote foofa jot sama xarit Mountakha Kane waxtaan ak moom munu ma sëñ bi dinañ recevoir suba 13h30 ci laa soog a woo imam Dramé bi nekk ak Ousmane Sonko parce que wax day am seede. Hmm. man munuma seede Ousmane Sonko. ma ànd ak moom ñu dem jaar fi ñu war a jaar toog waxtaan ak sëñ bi wax ko li nga xam ne it moom la moo xew. wax ko li nga xam ne jàpp naa ne am naa ko ci information te war naa ko ko yegal parce que ñun ñëpp suñu kilifa moom it mu wax ci lim ci war a def ci lim ci war a def réew mi am dal parce que mbir de eke gis nga mi ngi mel ne accident bu am nit ki bu loxoom daggee di nàcc hmm. bala nga koy faj da def li tubaab bi wax garu hmm. takk ko ba dara ji dootul sotti bu boobaa dañ ñu jéem a seet nak lañ ko mën a saafara hmm. donc man loolu moo ci doon sama taxawaay ma def ko mais pour vraiment de sant bu baax a baax a ginnaaw moo ko ziare kilifa gu tedd gi ndax taxawaayam gis nañu lan la jur ci réew mi. Hmm. amaa bu loolu weesoo nag hmm. li ci na ay waxtaan la yoo nga xam ne war hmm. nañ ko mën a def pour a trouver ay solution ci problème boo nga waxtaan lay ko te tëjuñu ko loolu tey na xel ñu bëri na xëy na gars yi ñoo ngi waxtaan dañuy xëy rek def comme ni ñu defoon ci Karim xam nga xam nga loolu man mënuma ci mënuma ci sori parce que euh, géré wu ma dossier ba xaw ma fu ñu toll waaye li ma xam daal waaye am na ay waxtaan non xaw ma ci dara mais li ma xam dama ne la li ma xam mooy hmm. lii ñuy wax naan jugé nañ ko te te te te ko yàgg na am Sénégal bari na tous les jours am hmm. parce que il faut que nit ñi comprendre ni bu fekkee ni dañ la atte condamné la bu fekkee ne juge bi dafa décédé mandat d'arrêt à l'audience dañ lay jëli aussitôt bu fekkee ne juge bi joxewul mandat d'arrêt dañ la condamné mën nañ la bañ a jëli aussitôt ndax dañuy bàyyi ba juge bi bind son juge ba rédigé ko ba pare jébbal ko procureur procureur soo ko exécuté loolu mooy am ci wàllu droit. maanaam ci cas mën nañ jàpp ne le premier ba tey le 26 juge baa ngi rédigé euh, jugement. xam nga waxuma kaawu Sonko de. Hmm. dama ni la tribunal ni muy doxee laa wax. xam nga gis que par exemple bi tribunal bi jugement bi bi juge bi disqualifié délit viol bi. indi délit nuñ ko tuddee attentat. Euh, corruption de jeunesse corruption de ñu bari di ci wax te pourtant tous les jours tey jii ñuy wax ni di altine boo demoon tribunal. Mm-hmm. di nga fekk ay nit koo nga xam dañ koy toppee ci nangam par exemple dañuy toppee nit pour pour je ne sais pas euh, euh, pour meurtre. Mm. joxe exemple ne rey nga nit. Mm-hmm. pour meurtre nga ñëw tribunal disqualifié ko. par Re exemple requalifier les faits blessure volontaire ayant la mort sans mm. yu mel noonu dafay am tout le mm. donc ñun dañuy jël suñu benn cas particulier yaakaar ne tribunal daf ko préparé pour diw alors demeewul noonu mm. man li ma gëm te gëm ko tey moom la Sénégal gëm nag parce que ku la jox naan gëmuma justice bu amee problème tribunal lay dem soo ko su gëmoon tribunal du fa dem li ma gëm mooy tribunal mi ngi def liggéeyam ni mu ko war a defee amaa fan lay mujj nag xëy na man mënuma ko wax parce que nekkuma ci biir dossier bi. d' accord am na ñuy wax ne itam président Macky Sall ak Ousmane Sonko danoo war a toog ànd nga ci. xam nga man ay nit yàgg nañ ñëw ci man wax ma ko. Hmm. mais ku ma ko waxit benn question laa lay pose ni ne man bala ma cee wax maa ma def ci da may wax lan lañu war a waxtaane ñoom ñaar su ma ko xamee rek soobu ci mais dama ko xamuloon alors bi président wootee dialogue ñëpp ñëw toog jàpp naa ne lépp lu ñu war a waxtaane ci réew mi occasion bi foofu la woon. ñu toog waxtaane ko ñu xam ban solution parce que lu ñu mënul waxtaane amul ñu toog waxtaane ko xool ban pexe lañ mën a def pour jàmm mën a am pour lii mën a avance pour lële mën a avance pour également que Sénégal continue di nekk république boo xam institution dañuy taxaw dañuy dëgër parce que Sénégal boo amuloon institution yu dëgër ba tey dërbeelu na bu yàgg ndax li àndandoo dal ci kawam ay nit nekk fële di saboter ndox mi pour Dakar bañate am ndox ñeneen nekk fële def coupe électricité pour Dakar bañ a am électricité ñeneen ñi jug pour attaque banque yi attaquer institution yi fi nekk attaquer kër yu ba yi fi nekk loolu réew mi mu dal ci ko boo amul institution yu dëgër da ngay nërmeel mais heureusement bi ñu yàlla suturalee ba nga xam ne génn nañ ci loolu njàmbarte ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi rawatina pour sécurité et la défense également ñaanu kilifa diine yu baax xay xam ñoo nekk ci réew mi mm. donc dañu continuer di ñaan ak lépp lu mënti xew que Sénégal continue nekk une république nekk une démocratie institution forte nekk fi pour que réew mi mën ko ne mel ni mu war a mel. Karim Wade ak PDS yàgg sàkku ñu réviser waat procès euh, moom Karim Wade ñu mujjee kaa am ci dialogue bi ndax mën nañoo jàpp ne jéego la jëm ci retrouvailles yi nga xam ne yow yàgg nga cee dox retrouvailles famille libérale. waaw xam nga retour à famille libérale moom comme ni ma ko wax man dimanche lañ ñu gagné élection mardi laa ko tàmbalee wax ba fi ñu toog xëy na neexul woon wax jamono yooya. Mm. dégg nañ ci lu de wax nañ ci lu mais amul solo li am solo mooy lu ci ëpp am na ndax boo xoolee tey ñi nga xam ne ñëpp ñëw toog di liggéey président Macky Sall daanaka bu fa président Abdoulaye Wade duggoon tey amul ku muy wax ni noo sant. Mm. kenn ku ci nekk xam na noo tudd xam na noo sant donc loolu muy am importance tey aussi lii nga xam ne moo am ndax man samay position du changer. ma ànd ak ma sàmb ak ma ànd ak ma dembaayam li xale yi di wax waar ragaluma ko muy bu vaar <laughs> ndax 2000 ba ñu nekkee ci procès Karim Wade la ma mësoon wax mooy wax ni CREI yi warul àtte Karim Wade hmm. CREI yi ni muy doxee jaarul yoon donc kuréel goo nga xam ne na muy doxee jaarul yoon la muy àtte mënuma ci ànd te mooy sama position bu fi ñu toog di wax kon bu ñu demee ba tey ñu ànd ci ni dañu war a xoolaat taxawalaat procès Karim Wade loolu dama ci sant yàlla bu baax a baax a baax procès bi nag ñaari mbir fa ñaari ñaari ñaari yoon lañ mën a jaar. Mhm. soit Karim Wade lui-même mi ñu condamné woon mu bind demandé ne nañu réviser sama procès joxe ay firnde yoo nga xam ni lu bees la lu ci am wër ou bien garder son ministre de la justice am firnde yu yu bees yoo nga xam ne tax na ba ñëw war a réviser procès bi mu demandé la révision du procès lu ci mënti am tey li dem nañ ci dialogue national tënk nañu ay ponk yoo nga xam bala ñu ko mën a doxal mu dem assemblée. te jàpp naa ne bu ñu demee assemblée député yi député PDS. Mm. ak député yi député euh, bokk ci mouvance présidentielle bi nekk ay député de la famille libérale. Mm. ñooy àndandoo te texte boobu. kon loolu day nekk benn jéego de plus. pour que li ñu mën daan wax lu retrouvailles de la grande famille libérale ak ni ko suñu baay bi président Abdoulaye Wade yàlla na ko yàlla may gudd fan ak nam ko daan waxee diko ko théoriser que les libéraux continuent à garder le pouvoir au moins pendant cinquante mm. loolu defe naa benn jéego la bu ci dellu pour que bu mën a am. jërëjëf monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. mais mais mais waxal sa président ne ko jotaguma xar bi de. <laughs> président mi ngi lay dégg <laughs> président Serigne Mbacké Ndiaye nee na jotagul xar gi. waaw waaw bonne fête de tabaski monsieur le ministre waxuma sañse <laughs> xar nga wax jërëjëf monsieur le ministre mi ngi lay dégg jërëjëf ñu